bëgg a ñaari question nga posé. oui 1er juin 2023 la ñu condamné woon Ousmane Sonko dans l' affaire Adji Sarr contre Macky Sall contre Macky et cetera cette année aussi ñu gis image bi nga xam ne ñu ngi koy moom euh, quand même est dafa am ñu bëgg a jàlle en écoutant également le premier ministre Ousmane Sonko en disant que bale bi moom dañ bale lépp ba mu set. waaw ñaari bale moo am. moo <laughs> am ñaari bale. Ah, soo may dégg ñaari bale moo xam ak moo xam. jomaay ma suivre la. man Pikine laa dëkk. ma ne xale da gis gars yi di jaay ay poudre naan la suy bale cuuraay. Hmm. fel matt mbóot ak yoo. ma ne jomaay man dinaa la ci dolli suy bale cuuraay fel matt yoo ak mbóot. <laughs> balaa ngay bare na wis affaire yi wis affaire yi mooy ñu saytu affaire yi mbóot yi génn ñu mën a xam mbóot yooyu moo tax tey ci say sujet nga boole ci lan moo xew ci telle structure état lan moo xew ci nàngam mhm. euh, beneen bi loolu nga ma wax mooy ñaari image mooy daaw ne gën ni daaw mhm. moom mu ngi nekkoon ci ci jafe-jafe ña ko doon jàpp wala ñi leen doon dóor tey tey ñoo ñoo taxaw di leen toojal mhm. loolu mbiru yàlla la peut nit ñi ñoo def ay collage mais man su may xool moo tax ma ne leen euh, parfois nit da ngay noppalu noppalu mooy nga xam ni yàlla moo defar. yàlla moo sauvé sax réew mi parce que réew mi mënoon na dem sax ci beneen condition. te souhaité wuñ ko. Mm-hmm. Euh, xam naa Diori Ndiassé dina ma dimbali après. <laughs> Mm-hmm. Euh, yonent yàlla Yuusufa mm-hmm. ci ci alxuraan dafa nekk saar boo xam dama ko déglu lu bëri parce que tax ma ko déglu mooy bu àdduna bi yëpp dajaloo woon doon la xeex wala àdduna bi yëpp dajaloo. bëgg la faagaagal. Mhm. bu la yàlla aaree yàlla sàmm la di nga egg te. olof Njaay da naan garab bi war a nekk garab pénc law bi du ko gis ba di ko gor. Mhm. xam nga Bassirou Diomaye ci koor gi la dugg kaso. Mhm. bi ñu koy jël si fële. impôt dig di ko jël si. mu lem ay loxo gaayam yi ñëw mun leen bàyyi leen. mu dem mu mu dem nekk ci kaso bi. nekk ci biir kaso bi la nekkee candidat. gars yi commencé nañ campagne RTS bi koy dara tey. Mhm. ñoo bañoon ne duñ génnee vidéo mhm. si ma wàññi jour yi mu campagne non seulement élection bi añ nañ ko añ nañ ko mais durée légale de campagne amu ko si juróom benn fan yàlla def ci weeru koor gi la gagné élection mhm. musul am Sénégal bëriwul lu mu am sax nit nekk opposition ñëw gagné premier tour un secondo mu def si prestation de serment nekk ci président kon bu fekk am nga jàngat di nga xam ne lii mbir mi du neen ñu bëri peut-être Sonko lañ visé wala missile yëpp ci Sonko la dem bu fekk yàlla ka muy indi moo ko làq fële ca ginnaaw te kenn gisu ko kon mooy li Cheikh Ahmad Bamba doon wax euh, benn benn benn dammel mu ne ko xamal ni nguur gi di tàbbi ci say loxo ci loxo ay nit la jóge te bu jógee sa loxo ci yeneen loxo la jóge moo tax may wax waxu suma papa suma xarit Thione lu mu doon wax. Mm-hmm. mu ne loo aye njëkkee woo ko te doo ci mujjee. Mm-hmm. na nga rafet ngir ay bi rafet. donc pour man euh, maintenant ñaari image lañ am daaw ci ay xeex lañ nekkoon léegi nag xeex jeex na nañu jublu ci. wagasu te defaru te ñëpp jàpp ci beneen bi ci wàllu cleaning day bi mooy permettre ma féliciter ki nga xam ne mooy Khalifa Ababacar Sall moom lañ jox mm-hmm. Sonaged yàlla def na. xam naa ko euh, ci yeneen circonstances ci ay projets yi ma doon liggéeyandoo ak moom. Mhm. Mhm. yàlla dogal en deux mille dix huit deux mille dix neuf ànd nañ ma ak moom Paris ci benn sommet bu mu demoon en tant que élu local euh, muy sommet sur le développement durable moom mu bokkoon ci ay sénégalais nekk ingénieur nekk expert nasaraan yi woo ko Paris pour moom mu ñëw wax ak ñoom ci wàllu traitement des déchets développement durable donc bu ma tourné ñu nome ko. moi je lii mooy l'homme qu'il faut à la ñu qu'il faut ñu nommé ko mercredi ma woo ko félicité ko ne ko euh, ci mbiru set setal bi bëgg naa nga ñëw fi ma dëkk mu bàyyi léppam ñëw fa donc euh, ma ko ci remercier mu ñëw fekk fa maire mm-hmm. commune bi Amadou Diarra ñëw partagé ak ñun et puis yéene boobu ñu si mu ci am ba tey beneen waxtaan la mën nañ koo gën a yaatal parce que tey euh, plastique bii nii buñ ko naanee ba pare fu ñu ko yóbbu table yi en bois mën nañ ko def ay table yoo xamante ni recyclage. recyclage justement on parle d' économie circulaire. Mm-hmm. Mm-hmm. tey ci àdduna bi euh, économie linéaire lañ amoon on consomme beaucoup on produit beaucoup mais après on produit beaucoup de déchets déchets yooyu nan lañ koy defee. Mm-hmm. tey nan la ñuy jàngalee suñu ay doom éducation environnementale nan la ñuy defee tri loolu je crois foo ñu defaat beneen émission maintenant. Dakar saltewul saltewul waa Dakar ñoo salte nañ ma baal. <laughs> waxin waxin la dégg-dégg la laaj. ndakaaru saltewul waa ndakaaru ñoo salte mhm. parce que ñun dañu am problème comportemental. bale bii ñu indi mu indaale ko dañu war a balewaale yenn mauvais comportement yi yenn mauvaise mentalité yi. ngay naan sa café Touba kaas plastique bi nga sànni ko. tu ne sais pas bi nga sànni en plastique ci suuf si ñaata at lay def parce que c'est pas biodégradable du seey ànd ak suuf si. ne mbedd buur la. beneen bi alam bi yàlla moo ñu ko jox ñun dañ fi jóge dañ ko war a sàmm ba suñuy doom ak suñuy sët bu ñu ñëwee fekk ko fi dakaar est une ville bétonnée. fu amoon garab dagg nañ ko. Mhm. ku mu neex nga dagg garab bi sax def fa sa taabalu banaana. Mhm. mbedd mi mbedd buur la. canalisation yi ñuy wax njàmpe ñax yi ñoo ciy dem loola neex nga tëmbal ko ci canalisation bi même canalisation yi nekk ci tali bi am na ku ma ko signalé woon côté Colobane gars yi dañoo dindi. Euh, égout bi bouche bi ci nekk dem jaay ko ferraille pare donc mhm. donc nous booy tabax sa chantier dal na ma ñu jox ko mu ñëw ne ma dañ ma jox autorisation de construire man ne ko autorisation de construire nekkul autorisation d' occupation de la voie publique. justement say briques ci mbedd mi. sa suuf ci mbedd mi nit ñi kenn du dem kenn du dikk donc Dieu ne change pas un peuple tant que ce peuple ne se décide pas sur son propre changement mm-hmm. Mm-hmm. c'est pas un, un président ou un prophète qui va va nous changer donc processus la boo xamante ni ñun ñoo war a am ce changement de comportement man damay gis ñu indi oto mbalit teg ko na le nga war a yóbbu foofu sa mbalit da ngay ñëw guddi minuit bu xoolee gauche xool droite gisoo oto mbalit jardin bi fa ngay teg mbalit bi kan moo koy def loolu donc pour man question d'éducation la question de comportement mais aussi question de citoyenneté et de responsabilisation de tout le monde mm. maintenant pour man c'est c'est un bon acte on dirige par l'exemple tout les di wax tout lead by exemple il faut que ñu gis tey Ousmane Sonko leadership bi mu amoon ko xam ne su wootee kaa leen xeex gaa yi xeex su wootee ne kaa leen bale gaa yi bale donc mën mm-hmm. loolu mooy premier bale bi deuxième bale bi nag mooy sëñ bi ñu waxante dëgg nag jàmbaar <laughs> euh, responsabilité dafa am solo. nit ki liñ la dénk moomuloo ko du sa alal alalu ñëpp la li ñëpp bokk ñu tànn la ci dix-huit millions sénégalais ëppoo ci jàng gënoo ci juddu ñu dénk la une responsabilité c'est tout à fait normal que ñu instaurer mm-hmm. la bonne gouvernance la transparence et surtout la redevabilité. état dafa am nu muy doxe dañu am cour des comptes man ci sama cadre liggéey cour des comptes ñëw na ci man enquête nañ ma lu ma juróom benn weer laaj ma mais cour des comptes dafa am ay chambre <laughs> lii moo jëm ci collectivité territoriale yi moo jëm chambre euh, administrative chambre financière mhm. audit xaw mooy lan Diori Ndiaye dafa baax mu dem seeti médecin bi ni médecin bi maa ngi nii bàyyi naa la ak sama bopp saytu ma donc la Cour des comptes dafay xool sur le plan organisationnel sur le plan structurel mmh. sur le plan administratif sur le plan financier mhm. su paree mu dox la li ñuy wax pré-rapport te bu lay jox pré-rapport service bu nekk dina ko jox pré-rapport mhm. ak benn pré-rapport global ku nekk mu ne la lii laa seet lii laa seetlu lii laa gis lii doxul mhm. lii nañ ko war a defee lu tax lii defee woo ko nangam jox ma tontu bi ak justice nga jox ko mu jëlaat say tontu confronté ko ak moom li mu càmbar su gisee dina am ñu mu jox ay recommandation si recommandation am na ay recommandation administrative maanaam sa wàll administration ni nga ko war a defee man fi may liggéey dañu ñëw ne ñu matériel bi ngeen di jënd pour seen wàllu liggéey fi ngeen koy stocké baaxul parce que amul sécurité bu ngeen ko bàyyee foofu nit ñi mun nañ koo jël par exemple mhm. sur le plan financier bu gisee ni def nga malversation financière ñaari points yi am danaa la nga remboursé mhm. wala mu ne kii na dem ci yoon et rapport yi ñuy wax Jomaay wala Sonko <laughs> du ñoom ñoo fi nekkoon du ñoom ñoo waxoon ne mission d'enquête bi dem la mission d'enquête bi fi président Macky Sall la fi nekk bi ñuy génnee rapport sur la gestion de la Covid Macky Sonko Sonko noo fi Jomaay ñoo fi Macky moo fi nekkoon moo fi nekkoon beneen bi IGE dafa nekk instrument président de la République e. président de la République dans le cadre de ses am na sañ-sañu yabal ay mission ñu dem saytul ko bu ñu ko indilee moom mu xool président Diomaye bi mu ñëwee la demande ñu publier mais am na rapport yoo xam ne balaa ñu koy publier par exemple IG il faut ñu déclassifier ko ñu indi OFNAC Macky Sall bi mu ñëwee mun a OFNAC pour pour ñun la lii pour ñële la donc déjà dafay mel ni ñaari type de sénégalais mu wax dëgg yenn dossier sous le coude ça veut dire quoi ça veut dire impunité bi jëwrin doon wax man nañ ma baalaan ci kàddu bi yenn yëfu dëmm la sax quoi c'est-à-dire <laughs> dëkk boo xam ni am na ñu amul ambulance grand tu que à Dakar am nañ ay abri provisoire dem na waxtaan ak sama benn xarit man ne ko ñun ci école yi ñu jànge ma a ko yow mosoo toog jàngi sa cursus boo xam ne ñett mhm. ngeen di nekk ci banc bi mhm. ma a ko soo mujjee woon ñëw baax yi doon jël deux da ngay écarter say tànk pour nga mën a am foo toog mhm. classe yi ñu doon jàngee ñun monsieur monsieur laay wax dañ koy tegal benn genre estrade podium pour mu mën a gis ñi nekk ci ginnaaw parce que nos classes c' est soixante dix personnes. le lycée Limamou Laye de Guédiawaye nga xam ni depuis les années soixante dix. montage la ay dëkk yoo xam ne nit ñi dañu am problème de maternité case de santé boo demee Dominique boo waree faju ñu ne la demal nga jënd caas. CTO bi boo léegi déjà toog ci ay milliards di ko séddoo quoi di ko zongale. après ñu kenn du leen ko laaj. noo su leen ko laajee ngeen non mais entre nous ko est que entre nous. jël alalu réew mi di ko tong-tongee doomu ministre di doxantoo ñu policier jàpp ko ak vingt et mu ger leen moom mooy kan fan la waree man bi ma juddoo ba tey mosuma yor million bu daj. comme <laughs> moom dafa yor ay nanga ah, xam ne di. grâce ma ne la. waaw ah, dafa nekk dans ma ne xool muy jël. <laughs> sëñ bi kon léegi nag muy jël. Ah, dafa nekk dans l'entrepreneuriat fi mu toll nga baal ma. xool laa xool laa ci waxee. waaw parce que. waay euh, li tax may wax loolu le commandé sénégalais. justement billaahi am na ñoo xam ne amuñu añ. ndékki reer ñetti duñ ko am waaw léegi jafe-jafe yooyu nan lañ ci nekkee ñu dénk ay nit responsabilité ñu mën a goqi guux xalalu réew mi lekk ko quoi non il faut ñu am opération goqi national pour man c'est pas une question de Diomaye ou une question de Sonko mm-hmm. c'est une exigence citoyenne vous avez géré on va mm-hmm. vous demander ce que vous avez géré comment vous géré képp ku ci def malversation financière. Mhm. képp koo xam ne jël nga alalu réew mi nga mhm. delloo ko alalu réew mi. maintenant euh, pour man loolu c' est c' est une exigence. et puis dafa baax sax. ci dëkk impunité boobu dañ ba nga xamante ni ñii bu ñu amee exigence boobu en jëwrin mhm. ñoom it képp ku ñu dénk di nga xam ne man bis bu ma fi jógee. dinañ toog saytu ba laaj maintenant nag li li ñu sonal. mooy njub gi. et pour ñu am njub il faut ñu am diine. il faut ñu defar suñu ay nit. parce que tey kii am na fu muy toll ci diine ci gëm yàlla ci ragal yàlla dina am yoo xam ne dina ko jombale boppam. mais mais mais mais ñenn ñi nekk ci benn bambu la euh, mu mel ni daal. Euh, alalu réew mi ñaari Sénégal daal voilà loolu nag pour man war a am je ne dis pas que nag képp kuñ tudd. def nga pour man justice. mën nañ la bind ci rapport sax. Mhm. nga dem ci yoon. yoon def ak liggéey setal la mhm. mais nag sénégalais dañu ubbi seen bët di xool parce que bëri na yoo xamante ni amoon na fi man dama doon toog ma naan mooy scandale Sénégal daa mel ni pays de scandale chaque semaine nga dégg benn. yooyu nag il ñu leeral ñu ko. moo tax suy bale cuuraay bi da ciy baax mbuuti génn. waaw ñu mën ko